yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di rafetlu bu baax a baax taxawaay bi mbokk yi am na ñoo xam am na ñoo xam ne bugaan neex na leen waaye tey du bugaan moo ñu fi indi waaye tey bugaan neex la bugaan nga bëgg ko bugaan nga bañ ko war nga nangu dara mooy am na lu ëpp juróomi téeméeri liggéeykat yoo xam ne bés bu nekk fii la ñuy xëy et que yooyu ay père mère ak soutien de famille lañu nam bu fekkee bugaan da nga ko bañ war nga seet ci yow ndaxte képp ku fi nekk ci Sénégal boo nekkul père de famille nekk nga mère de famille boo nekkul mère de famille nekk nga soutien de famille kon am nga doom fay école war na la fay luwaas war na la joxe dépense war na la faj bu feebar jotee war na la ak ñoom seen donc tey liggéeykatu des médias ñoo ñu fi indi ndaxte nag dañ koy faral di fàtte journaliste yi ay père de famille lañu journaliste yi ay mère de famille lañu journaliste yi ay soutien de famille lañu et que war nañ bàyyi xel ci loolu c'est vrai que dañ leen di gis ci plateau yi ñu maquiller leen ba ñu rafet ñu maquiller leen ba ñu yànj ñu ñuy bégal waaye nañu fàttaliku ne dépense daf leen war lu waas daf leen war et que lii nga xam ne mooy raam fii jëm ci D-Média buñ ko seetaanee mooy lu ëpp juróomi téeméeri liggéeykat dina ñàkk seen emploi juróomi téeméeri liggéeykat nag mooy lu mu néew néew néew néew néew ñeenti junni doomu aadama ndaxte liggéeykat bu nekk minimum mun nañ wax ne ah am nga ñeenti nit yu bootu ci yow donc lu mu néew néew néew néew néew néew ñaari junni doomu aadama ñu ngi ci tiitaange ñu ngi ci naxar ñu ngi ci métit ñu ngi ci stress ñu ngi ci angoisse ay ayu bés a ngi yi ndaxte nag nga am sa pap nga am sa yaay nga am ki nga xam ne mooy joxe dépense ci kër gi ñu naan la dina tëj wala du tëj loolu ku mu méttiwul nekkoo nit kon angoisse boobu stress boobu métit boobu jafe-jafe boobu moo tax ñun waa Africa First ñun waa ànd taxawu askan wi ñun waa Y'en a waa Sénégal notre priorité ñun waa FRAPP ñun waa luttons contre l'indiscipline au Sénégal ñun waa force démocratique du Sénégal gëlawaar ñu ne donte jamono jii wax naa Y'en a marre jamono jii loo waxta waxo mbiru investiture kenn du la faale donte jamono jii loo wax te waxoo mbiru élection locale kenn du la faale dina ñëw fii tey ngir wax liggéeykatu des médias seen métit suñu métit la seen jafe-jafe suñu jafe-jafe la moo tax ñu ñëw fii tey ngir wax président Macky Sall waa des médias am na ñoo xam ne dinañ nekk seen wet waa D-Média duñu wéet ci mbir mi dañoo ñëw fii pour wax sénégalais yi ne ñun ñëpp nous devons nous ériger en bouclier bouclier de la liberté de la presse bouclier de la liberté d'information bouclier de la liberté d'opinion waaye bouclier également des droits les plus élémentaires des travailleurs waa ji dañ ko laajoon ne lan mooy démocratie mu tontu leen ne leen démocratie mooy réew boobu nga xam ne boo waxee li nga xalaat ba noppi te saagawoo di nga ñibbi sa kër lan mooy démocratie mu ne démocratie mooy réew mi nga xam ne boo nekkee journaliste te di traité information bi di wax sa gis-gis boo paree doo ñàkk sa liggéey kon bokk le président Macky Sall est interpellé ndaxte bu tëjee des médias bu yàqee juróomi téeméeri emploi ça veut dire que Sénégal nekkul démocratie ça veut dire que Sénégal nekkul démocratie et donc waa des médias comme yeneen journalistes yëpp war nañ am sañ-sañ ne ginnaaw bu ñu liiree constitution di Sénégal Macky Sall amul sañ-sañ nekk troisième fois candidat te du ñu yàq seen liggéey. waa des médias war nañ am sañ-sañ bu ñuy def revue de presse naan sul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere te kenn du yàq seen xëy ak gontu waa des médias am nañ sañ-sañ ne ci ni ñuy traité information ne kat waaw kumba am ndey ak kumba amul ndey am na ci réew mi ci ni ñu géré wee tur yi nga xam ne moom la ñu jàppoon pour yóbbu leen CREI yi te du ñu ñàkk seen liggéey et donc nous sommes tous interpellés ñun nag ñu ngi fii ànd ak waa D-Média ànd ak liggéeykat yi ngir ànd def benn say ngir li nga xam ne moom lañ moom la ñuy mébét bu mu antu ndaxte kat ci élection locale lañ jëm xanaa kon mooy D-Média day tëj avant élection locale xanaa kon mooy dafa am lu ñuy waaj ci élection locale yi xanaa kon mooy balaay Macky Sall di wax naan je vais être une troisième fois candidat dañoo bëgg a tëj des médias waaye tamit toute la presse est interpellée tous les organes de presse sont interpellés waa ji moo doon wax ne quand on est venu chercher les communistes je n'étais pas communistes je n'ai rien fait quand on les juifs je n'étais pas juif je n'ai rien fait Quand on est venu chercher les musulmans, je n'étais pas musulman, je n'ai rien fait. Quand on est venu chercher ceux de D-Média, je n'étais pas travailleur de D-Média, je n'ai rien fait. Et quand on est venu me prendre, il n'y avait personne pour me défendre. li muy wane mooy les autres organes de presse bu ngeen buggee sàmm seen organe de presse bu ngeen buggee sàmm seen emploi il faut empêcher que le complot contre les travailleurs de D-Média réussisse parce que bu ñu paree ci D-Média ça sera Presse Afrique ça sera TFM ça sera Sud FM sera Walfadjri ak ñoom seen et donc la meilleure manière de se protéger c'est de protéger les autres sa kër dëkkandoo buy tàkk nga ne du sa kër doo def dara bu yóbboo nga xam ne daay bi bu paree ci kër googu sa kër yow la jëm Donc toute la presse est interpellée. Il y a des silences qui sont des silences complices. Des médias Bouddha, no way. Ça ne sera à l'avantage d'aucun autre organe de presse. Sénégal yaatu na tous les organes de presse war nañ fi mën liggéey ku nekk am li nga xam ne mooy wërsëgam ba pare ngeen tedd si donc nañu def benn say journalistes yi nañu def benn say organe de presse yi nañu def benn say parce que c'est la liberté d'informer la liberté d'avoir une ligne éditoriale qui est en jeu alors ñun duñu dugg ci débat est-ce que Bougane dafa amel xaalis am déet est-ce que du lii la amel am déet débat bi comme ni ma ko waxee mooy des travailleurs sont menacés ci réew moo xam ne chaque année il y a trois cent mille nouveaux jeunes demandeurs d'emploi état bi di leen di jox trente mille emplois mu des deux cent soixante-dix mille chômeurs boo mënul jox ay liggéey waa Sénégal na nga aar na nga sàmm liggéey yi nga xam ne am na fii donc war nañ sàmm les plus de cinq cent emplois du groupe des médias boo mënul créer ay emploi waay waay waay waay waay waay sàmmal emploi yi fi nekk lii moo ñu fi indi journaliste yi ah bu ma paree ci ñaawlu la politique du président Macky Sall bi nga xam ne dafa mel ni lu troisième candidature bi di gën di jege li deux mille vingt quatre di gën di jege muy gën di mobiliser la justice muy gën di mobiliser la police et la gendarmerie contre les esprits libres contre les citoyens libres contre les organes de presse libres ginnaaw bu ma ñaaw lu ñaawluwee loolu te kenn du ñu ko fajal ku dul ñun te du mbiru journaliste yi mbiru sénégalais yëpp la ndaxte aujourd'hui l'information juste et vraie est devenue une nécessité comme le pain, comme l'eau, comme l'oxygène. Aujourd'hui, les émissions du groupe des médias, la revue de presse du groupe des médias, le journal du groupe des médias, l'essentiel du groupe des médias, Numbelan du groupe des médias, sont devenus une institution nécessaire pour les Sénégalais, pour l'oxygène, l'oxygénation de la démocratie au Sénégal. léegi nag ak waa Grande Gueule <laughs> léegi nag ah bu dee dafa amel xaalis na fay loolu amul négocier bu dee Maimouna Ndour Faye dafa ameel xaalis na fay bu dee Youssou dafa amel xaalis na fay mais on a l'impression que dans ce pays là kumba am ndey ak kumba amul nday dafa am ñun d'accord nañu pour que des médias bu amelee Sénégal na ko fay waaye nag kumba am ndey ak kumba amul ndey duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ndaxte nag bu fekkee dañuy bàyyi ñeneen ñi ñu ameel xaalis te duñu fay acharnement lay doon te acharnement bi mënul nekk duñ ko nangu acharnement bi mënul nekk te duñ ko nangu loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu fi indi tey fi may daanelee mooy Sénégal dafa ndóol donc soxla na ñëpp fay impo donc suñu xel mën na nangu état du Sénégal ne Youssou Ndour fayal pour groupe GFM El Hadj Ndiaye fayal pour 2STV Bougane fayal pour des médias waaye est-ce que problème xaalis la ndaxte bu nekkoon problème xaalis ndax dinañ seetaan ministre de la république yi di luubal xaalis bi te du ñooy pat nañu waxante dëgg nañu bu nekkoon problème xaalis est-ce que dinañ seetaan Aliou Sall di naan suñu pétrole ak suñu gaz bu dee problème bu dee problème xaalis la ndax dinañ nangu Karim Wade rek ñu yóbbu ko CREI bu nekkoon problème xaalis rek ndax dinañ nangu dans cinq cent et quelques collectivités locales au Sénégal Khalifa Ababacar Sall donc ñu yóbbu ko kaso donc gars bu ñu naxante du problème xaalis problème liberté d'informer la problème liberté de communiquer la problème liberté d'opinion la problème de liberté de ligne rédactionnelle la te du fi amee tey du fi amee ëllëg des médias vivants